Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum, yeah. Assalamu alaikum, alaikum. léegi nag na nit ñi góor góorgóorlu ci salaatu ala nabi te nag sama sama mbokk sëriñ si nañuy ñaan di def salaatu salaatu ala nabi eh, sëñ Maodo. Mhm. xanaa xamoo ni jëf yëpp la yàlla eh, eh, de maanaam yu ci bari dana ko delloo jëf yëpp da koy delloo. Mhm. ba mu def salaatu ala nabi. Hmm? waaw fi ne nit ki nga xamante ni daa ameel nit bor bu bis pencee ñuy jël ay ñaawteefam ay yiwam di ko jox ka mu yoreel bor di ko def mboolem yiw yëpp dinañ ko jël ba mu def salaatu ala nabi salaatu ala nabi moom ku ko def yaa ko moom ci yow lay delluwaat ci yow lay dellu kon nag nit ki war na koo saxal di ko baril lan lan mooy njariñu ci li ngeen def la cay tegu muy sarax waaw sarax nag yàlla wax ni jël leen ci seen alal ngeen génne sarax ci alxuraan. parce que da koy sellal. waaye day day sellal alal ji. Mhm. waaye nag da leen di dimbali ci lan ci gàllankoor yi. fi ne nit ki léegi léegi nii mënoon naa bu génnee accidenté mu génn fii nit rek sarax ko dara suñu borom fegal ko fegal ko accident boobu. Mhm. yamxullaaha maa yashaa'u wa yusabbitu mhm. yàlla dina bind ci nit ki daa war a ñàkk. nit ki daa war a feebar nit ki daa war a accidenté nit ki dañ koo war a tëj mu génn sarax suñu borom dindi loolu lépp saxal fa leneen. waaw ala kulli aal ah te sarax nag day daa bokk ci yi nga xamante ne nii day. est-ce que li ngeen def dafa lenn ci leen dafa am lu muy laaj wala am loolu jaru ko. waaw ça dépend am na yoo xamante ne nii léeg-léeg nit ki dugg xalwa ñu laaj ko ni ko war naa génne lu tolloog benn kilo ceeb wala war naa génne gëléem wala war naa génne nangam ci ci kii yooyu yëpp luñ koy wan la ndax am na yoo xamante ne nii nëbbuwul boo liggéeyee rek suñu borom mën na la koo xamal mhm. mais nag bari na ñoo xamante ne léeg-léeg dañuy gis nit ki rek xam ni lii mooy saraxam ñu war ko koo génneel ñu génneel ko ci saa si ci saa si ci saa mbokk yi ma na ak Mouhamed Moustapha Samb mu ñëw ci wàllu xam-xam yu am am solo mhm. wax naa léegi ligne bi nga xam ne mën nañ ko cee jot ci 77 809 47 95 wala boog sax foofu 78 121 14 13